amis internautes nuyu na leen GR leen bu baax a baax ci ànd bi ngeen ànd ñu seen euh, première chaîne de la banlieue di IM télé international média TV mbokk ñëwaat ak yéen si universe sport donc comme ni ngeen ko xamee nag euh, ñu ñëw nag ci euh, légende bi di Pépé hmm, Pépé nag mbokk yi ngeen xam ko ci. Ah, parcours bu am solo bi nga xamante ni daf na ko jaar ci ah, Real Madrid Porto bëri na club yi nga xamante ni mbokk yi ah jël na fa ay eh, trophée muy Real Madrid ak Porto ah mu nekk eh, joueur boo xamante ni ah eh, dafa mujjee hmm, arrêté carrière am ah si 41 ans Pepe nekk nag joueur boo xamante ni bu ñu xoolee parcours am bëri na ay trophée yu yoo xamante ni jël na ko mu nekk joueur boo xamante ni gis ngeen ko moo nekkoon joueur bu gënoon mag ci Europe bi ñu génn moom nag après Europe si la décidé. li nga xamante ne moom mooy dafay arrêté li nga xamante ni mooy carrière am ñu gis ki nga xamante ne moom mooy Cristiano Ronaldo ah hommage bi nga xamante ni rend na ko si ndaxte bu ñu xoolee Pepe jaar jaar bu am solo la am ci football. mbokk yi ba tey ñu ñëw nag ci euh, xale espagnol bi di Nico Williams moom nag gis ngeen dossier ah, mën nañu wax ni dossier dafa nekk dossier boo xamante ni actuellement ni mbokk yi gis ngeen Paris Saint-Germain actuellement nii dellu na ginnaaw mais dafa mel ni. Euh, FC Barcelone euh, moom ba léegi bàyyeegul ndaxte ñoom actuellement nii euh, ñi ngi naan ñi ngi contacter agent Nico Williams ndaxte ñoom daal am nañ espoir ba léegi ne Nico Williams war na mën a ñëw foofu ca Barcelone mu nekk dossier boo xam ne nag mbokk dafa compliqué ndaxte ki nga xam ne moom mooy Zodo muy Nico Williams moom nag dafa décidé ah rester foofu ca Bilbao. ñëw aussi tamit ci ah, euh, ci ba tey resté si FC Barcelone ndaxte ki nga xamante ne moom mooy Coman Coman nag nekk Kingsley Coman nekk joueur bi nga xamante ni Bayern la nekk moom na actuellement nii euh, gis ngeen entre Paris Saint-Germain wala Barça gars yi ñu ngi ko fay annoncé si ñaari côté yooyu yëpp. mais de toute façon daal ñu ngi toog di xaar parce que fi mu nekk nii moom mooy Bayern dafa mel ni da ko bëgg a ah, euh, pour pour fexe ko jaay pour fexe am ci moom xaalis. en tout cas loolu ci mën dégg rek mooy diggante ki nga xamante ne moom barça wala paris saint germain ñi ngi am yaakaar ni ki nga xamante ne moom mooy king si lay commande dem si club yooyu benn ñu ñëw aussi tamit ah ci ah ci xale bi nga xamante ni ah moom aussi tamit ah faye noot la nekkoon muy muy ah muy muy zer truida ah zer truida ah, nekkoon foofu ca faye actuellement ni doon nañ ko annoncé ca paris saint germain finalement nag aston villa Hein, le le fay lay mujjee dem mu nekk joueur boo xam polyvalent la day football latéral droit mais des football en même temps hmm, ak central. y a aussi hein, Jean-Claire euh, Todibo Mohamed hein, moom it euh, gis annoncé ce Juventus finalement ah problème dafa am entre euh, Juve ak ñi nga xam te ñoom Nice ba finalement West Ham West Ham dugg na ce dossier bi ba actuellement ni ki nga xamante ne moom Jean-Claire Todibo mom dafa melni légui décidé na. ah signé foofu sa West ba tey ñu reste ci West mbokk yi gis ngeen actuellement ni West nag actuellement ñi ngi def renfort bu extraordinaire ki nga xamante ne moom mooy euh, Trippier tripier nekkoon foofu ca Newcastle moom nag actuellement ni West aussi tamit dugg na ci ay dossiers pour fexe ko ah euh, récupérer ñu ñëw aussi tamit nag ci xale bi nga xamante ni ah xale la boo xamante ni euh, actuellement ni entre Real wala Paris Saint-Germain ah ñi ngi koy xëccoo ndaxte xale la boo xamante ni. ah euh, comme ni ñu koy waxee bu ñu xoolee léegi Paris Saint-Germain moom politique bi ñu génnee moom mooy fexe jënd ay ndaw yoo xamante ne am nañ talent mais xale bi nag euh, Chelsea la nekk Chelsea la nekk ba tax na actuellement ne Real ak pare nag ñu ngi koy xëjjoo ah. mu nekk xale boo xamante ni gars yi ngi naan day fuwal ak central mais day fuwal en même temps ah. day fuwal en même temps li nga xamante ne moom mooy arrière droit tudd ah Hicham Pong ah euh, tudd xale bi nga xamante ne moom mooy Hicham hmm, Pong ah Achampong nekk xale boo xamante ni en tout cas Real ak Paris Saint-Germain ñu ngi koy ñu ngi koy xëccoo mu ne xale boo xamante ni bokk ñu ngi leen toppal information bi xool nag si ñaari club que Paris Saint-Germain ñu ngi cherché seen deuxième arrière droit pour euh, ki nga xam ne moom mooy Hakimi bu fa nekkul dina ko mën a remplacer mais Real Madrid aussi tamit bu ñu fàttee moom ñoom benn latéral droit la ñu yor muy euh, Carvajal parce que souvent da ngay gis ay excellent la ñuy footballoo latéral ba tax na xale bi en tout cas en tout cas xel bu euh, baax a baax ñu ñëw aussi tamit si xale bi nga xamante ni ah moom euh, euh, bu ñu xoolee marocain la gis ngeen leen ko si Jeux olympique bi moom nag actuellement nii ah bu ñu xoolee ah club yi ko soxla muy ki nga xamante ne moom mooy ah moom mooy Amir hmm? Amir Richardson Amir Richardson nag actuellement nii mbokk yi bu ñu xoolee ah Fiorentina Fiorentina nak actuellement nii moom moo ko soxla moom Amir. Euh, Richardson moom mi ngi nekkoon foofu ca euh, Reims moom nag actuellement nii ñi nga xamante ne ñoom ñooy Fiorentina ñoom ñoo ko soxla ba tax na ah, ñu ngi siy fay li nga xamante ni 10 millions d'euros ah euh, plus parce que gars yi léegi li nga xamante ne moom la ñu xewal mooy dañuy bëgg suñuy jaayee jour bi ah bu ñu koy bi ñuy defaat revente bi ñoom it ñu am si pourcentage ba tax na gis ngeen dañoo def ñu ngi koy bëgg a jaayee transfert 10 millions d'euros si revente bi aussi tamit gis nga ñu defaat si cent muy ki nga xamante ne moom mooy Amé Richardson. mbokki bu ñu jógee foofu aussi tamit ñëw ci euh, ah, ci euh, góol bi nga xamante ni ah, moom mooy Geoffrey euh, Geoffrey ah, de Lange ah Geoffrey de Lange moom nag si seen foofa ci Olympique de Marseille gis ngeen Marseille actuellement nii ñoom it ñu ngi si renfort bu bu am solo ndaxte gars yi nee na nag Ah, eh, ren ji nak gay, gam na ni nak digënté paris saint germain ak marseille nak gaay ñi ngi naan nak bipa nak dina tang jër ñu aussi nak ci hein ci hein sil alvarez alvarez nak gay ñi ngi naan dimas inshallah si lañ koy xaar fofu ci hein ah, fofu ci espagne fofu ci atletic hein eh, ah, fofu ci eh, atletic madrid atletico madrid ndax tay momit renfort bu am am solo wa ñu bi resté fofu ci atletico madrid gis ngeen ki nga xamantene mom moy jao felix actuellement ni mbokk yi gis ngeen ñibi na fofu ci atletico madrid mais club bi di benfica ñoom nag dañ ko bëgg récupérer ah dañ ko bëgg récupérer mais nag ñi ngi xool ba xam euh, Joao day mujjee resté foofu ca Benfica ou bien dafay ah dafay mujjee resté foofu ci Atlético Madrid ou bien dafay dem ca Benfica en tout cas Benfica ñi ngi préparé def li nga xamante ni moom mooy ah, moom mooy euh, offre pour naka la ñu war mën a def ah pour euh, pour pour pour ah pour jël Joao Félix. ñu ñëw aussi tamit si Juventus Juventus nag def na offre ah def na offre si si xale bi nga xamante ne moom mooy ah. ah Koppmey Nes ah Koppmey Nes ah Koppmey Nes nekk ah euh, nekk Atlanta ñoom nag actuellement ne Juventus ñoo ko soxla ba tax na fay nañ ci 55 euh, millions d'euros léegi nag ñi ngi xaar ba am offre bi ah dina arrangé waa Atlanta ou pas muy Kopp muy Koppmey Nes ah nekk aussi tamit euh, joueur bu foofu sa Atlanta. ñëw aussi tamit si Milan AC ah Milan AC nag moom it gis ngeen ñaa actuellement nii ñu def préparation bu am solo ah gis ngeen ko keroog seen masak ah, ak. mas bi ñu def ak Barcelone ah ak mas bi ñu def ak Real Madrid da nga gis ni ah, Milan def na renfort bu am am solo ba tax na ki nga xamante ne moom mooy Emerson Royal actuellement nekkoon foofu ca Tottenham mën nañu wax ni daanaka déggoo am na si diggante Tottenham ak Milan AC ba tax na moom it am nañ yaakaar ne bientôt incha allah dinañ ko gis ah foofu sa foofu ca euh, ca ca Milan. ñëw ci Inter de Milan Inter Milan nag def nañ benn offre bu toll si ah 15 millions d'euros si Nathan Zézé ah. nataan ah Nathan waaw Nathan euh, Zézé ah nekk euh, ah nekk nekkoon foofu nekk foofu ca Nantes actuellement nii nag ah. Euh,

quatre ah beneen un an. ñu ñëw aussi tamit ci euh, club bii di euh, réal Sociedad ñoom nag départ Mikel Moreno moom nag actuellement nii ñoom ñi ngi naan bu fekkee Mikel Moreno dem na foofu sa Arsenal ñi nga am yaakaar ki ko war a remplacer. ah di Carlos Soler nekk foofu ci Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain nag actuellement ni ñi ngi naan pour ñu bàyyi ki nga xamante ne moom mooy Carlos Soler ñi ngi ciy laaj lu toll ci ah li toll ci 20 euh, millions d'euros mbokk yi ah ñi ngi leen di toppal information yi ndaxte même euh, ki nga xamante ne moom mooy Victor Osimhen moom nag boobu ba léegi gis ngeen ñi ngi koy annoncé foofu sa Chelsea foofu ca Paris Saint-Germain mais jour bi ci boppam moom Victor Osimhen moom dafa mel ni Paris Saint-Germain la choisir naan Euh, ki nga xamante ne moom mooy euh, président sportif bi ah muy euh, directeur sportif bu Paris Saint-Germain mom actuellement ni mom dafa bëgg récupérer ki nga xam te ne Victor Osimhen mais dafa melni actuellement ki nga xam te ne moom Luis Enrique mom mo gisul euh, Victor Osimhen ci plan de jeu mu nek lo xam te dafa compliqué parce que directeur sportif bi bëgg mais entraîneur bi nak actuellement ni fa la problème bi nekkee ba tax actuellement dossier Victor Osimhen ñi ngi nan Paris hein wala Chelsea en tout cas compliqué na de toute façon ñi ngi leen topal information yi mbokk yi ñu leen wax rek ngeen partager abonné ah, ñu topal leen information yi jajeuf légui légui